Euh, marhaban bikum cheikh yérim sekk tey ci talaata ji lañ koy defeere allah réew mi yéene kaay ñu ko xamal vox populi na ko defeere tey bi nag mooy fay jàkkaarloo ak procureur ba turbine yéene kaay ne ko ginnaaw bu mu waxee xibaar yu garaaw ya ca mbiru bati plis ba yeneen bopp nag nar nañ leen a këtt fañ leen di dog maanaam danañ daanu yaaw seetal Farouk Rachel Alex gaaña jatanka nañ ko cheikh yérim sekk nag ginnaaw buñ ko dégloo nee na la ma waxoon démb moom laay waxaat tey yéen enquête kat déglu leen mu baax ñeenti milliards moom la gendarmerie jëlee ca kër Farès ëpp na li ñu wax fuuf fan laa jëlee xibaar bi nag kan moo ma ko wax maa bañ maa lànk du ma ko wax ndax journaliste du joxe source am nañ ci droit di critique yéen a kaay na boo moytu nag ca kasoog rëbës ga fa ko nar a yóbbu ndax li ko gaañi tuumaal wax lu du dëgg jëmale ko ci gendarmerie l'observateur ne waaye gendarme yi nga xam ne ñoom la Cheikh Yérim Seck tuumaal loolu ñoom itamit tey danañ leen déglu enquête yéen a kaay mel ni ku naan ko gendarmerie kay mer ba futt la ñu def l'évidence yéene kaay ne waaye Cheikh Yérim sekk tamit xam nga joxe na xibaar yu garaaw moom i tamit defati na lu garaaw ca dëkk bu sell ba Touba loo xam ne presque ñu bëri yëguñ ko fañ koo mës-mësal nëbbu ko a yaaw seetal benn xale bu jigéen doomu kilifa bu mag ca Touba Cheikh Yérim sekk fa ko wann looloor ay ba pare nag bañ ko ne du moom yéene kaay bi ne bii mooy ñetteel bi yoon ñuy dégg Cheikh Yérim ci wàllu wiyol ak tëddee xale bu jigéen ak wann loo ko lorok ak te bu mujj bi xale bu jigéen bii mineur la amul sax fukki at ak juróom-ñett nay leer lu leer ba yegg ca naan ñi mooy ne xam na ay sëtu ku tedd ki fa ñoo jóg taxaw ngir jaamaarloo ak képp koo xam ne fa ngay attaqué sëriñ bas abdou xaadir mbàkke ki yor kàddu yoonu murit l'évidence yéene kaay ne xam nga sëriñ bas gaañe fañ koy tudd ci wàllu suuf su lew hectare yu bari ca littoral ba ndakaaru bu ñu naan jox nañ ko kook mu taxal ko jaay kook di ca tudd ay milliards yu bari ndaw mbàkke mbàkke nag nee na loolu du dëgg ay tuuma la yàq der sëriñ bas laalawu ci sax nee na ñu nag lu ëpp tuuru fi mu toll ni fas yéene ñoo ak gaañi faneen fu ñàkkante am mooy ca cantaakun ya kër cheikh bee ah, ca nettal témoin kaay moo ñu xamal na ndonnoo Cheikh Béthio benn at ginnaaw bu mu dëddoo àdduna carte ga jaxasoo na ca njaboot ga de moo jur xeex ñàkkante ca seen biir biir magistrat attekat yi ci Sénégal faam kuñ ciy wax yaayaa du Dia mooy ki fi ñaawlu woon ne wàllu ger am na magistrat bu ponkal bu mag bu ko def ginnaaw bu mu joxee xibaar yi biróom la gaañ a dem dajji ko ba tax critique yéene kaay ne gaañ a tëj nañ gémmiñ gi fi mu toll nii ah di ñaawlu lu bon ñu lu ñaaw ta bon nga mujj noppi génn ca foofu dem ci atteeb Lamine Diack ba ca France les éco yéene kaay na ca kanam dafa mer wax tubaab ya juróom-ñeent fukki dëggam ak juróom-ñeent a yaaw seetal nee na lii ngeen may tuumal di ko wax ni yëpp dara du ci dëgg fa ngeen di sos di wax ay waxu caaxaan caaxaan yu ñàkk fayda bu leen ma foxanto waay bàyyi leen ma ma dem man ma dem ci laas yéen a kaay fekk fa askanu géej waay fa ñoo fa yéen a ak gaa ñi bëgg a caxat-caxatee seen suuf sa ca peeg géej ga réew mi yéen a kaay moom di ñu xamal ne coon sekk wëykat démb fañ ko doon àtte ci tribunal ba ci mbiru faux billets ya waaye procureur ba xam nga lu wax nee na coon sekk mi liñ koy tuumal yëpp moo ko def nañ ko tëj juróomi atu kaso ak fukki million alamaan ndax alaay jite moom moo doon defar faux billets yi coon sekk nag moo ko doon tasaare loolu leer la mi ngi ko wax ci les échos yi ne kaay coon sekk nag ci l'observateur nee na lii ma dal ba ma dee duma ko fàttee gàkk-gàkk la sama dund gi li ma ci gën a métti mooy sama doom ji Wally Seck man yàq naa carrière rek sa bàyyi dugg ci faux billets tëj nañ ko kasoog nar koo tëjaat te man sama alal ji yëpp gaañu nangu nañ ko man dañ maa liggéey ndax sama wëy yi man njub ak def lu baax rek laa daan wëy kon lii ma dal xanduma ak sama sago yéen a kaay bi ne sekk kay setal na boppam waaye la wax nag wax dëgg yàlla ay waxu caaxaan caaxaan rek àndul benn firnde buy wane na lii defut ko ay dañ maa liggéey ak yu fukki fan ak ñaar nag si weeru soin ci la attekat di joxe dogalu atte bi nay lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne seen o mii ndikati yoo ñoo gën a tële gën a bon SDE ah ñàkkum ndox mu metti ba am ca quartier ca Ndakaaru ay fan yu bari libération moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom si du quotidien mooy am na ay maire yu bari d'accorduñ ci dogal bi njiitëram Macky Sall jël ngir fexe ba autorisation de construire tabax kër këyit ba la koy jox mën ngaa dem ci sous préfet wala préfet yu ñu jox la ko la mu ñu jox moom direct direct news mooy jaar jaaru xam lañu ak kan mooy Pape Faye théâtre kat aada ak cosaan moo dee ci deret ji mooy borom baat bu garaw bi rek li garaaw dëgg nag Sénégal mooy corona bi rey ci xanam gu jéggi dayo ñeenti doomu aadama moom la rey ni ki démbu libération nañu fi mu toll ni juróom benn fukki doomu aadama ak ñeent la rayagum démbu am na ñaar fukki doomu aadama ak ñaar ña nga ca diggante dund ak dee fukk ak juróom-ñeenti cas communautaire laas yéen a kaay na ko ñaari fan juróom-ñetti doomu aadama corona na leen Sénégal bokk na ca ñam rey benn paa ñaar fukki at ca diiwaanu Jurbel moom fa jàngoro corona dal ko xamul ne ko dal ba mu jaray ko bañ koy denc nag ay mbokkam fa ñoo bañ jàppante bu métti seen diggante ak sapeur ya source ay yéene kaay ñi ko xamal ba tey yéene kaay bi di ñu xamal ne palais bi njiit réew Macky ba corona dugaat na fa ay benn chauffeur bu fay liggéeyee xam ñaari jabar moom la xaritam wàllu corona bi vox populi di ñu xamal mbir mu yéeme mag ak rakk daal ñoo dem ca géej ga gis seen goro di lab bay waaj a dee ca ndox ma ñu dem di ko dimbale far ñoom ñaar ñu mujj lab ba faf dee nag ay ñaar ñu dee waaye ñi ay militaire lañu ca Casamance ginnaaw bu seen oto jaaree ci ab ndell mu kalaate libération moo ñu ko xamal quotidien yi ne kaay ne soldaar yi jàmbaar yi fan yi sonn nañ Casamance de ñetti oto jaar nañ ci kaw ndell réew mi yéen a kaay di ñu xamal na benn maçon daal moo yéeg ci kaw teraas di tabax xajjee ko fa xattar biku daanu faatu ñàkk bakkanam allah suuf su ay yéen a kaay na ko du maçon bu qualifié de ab elaw la corona bi ñàkk moo tax mu sonn dem nekk ouvrier maçon ci la daanoo ca kaw terrasse ba dee yëf yaa nga amee ca diwaanu Jurbel l'observateur na ko waa FMI yi nee na Sénégal ñàkk gu métti ndóol moo yoot askan wi ndax corona bi les éco yéen a na ko réewum senegal nag ñi fi gën a ñàkk ndóol sonn mooy diiwaanu Kolda ak Sédhiou naka noona Matam Kër Massar Diamniadio ak Gounass les éco yéen a kaay benn soxna daal moo sàcc jëkkëram ñeenti million ci suñu xaalis allah xaritu jëkkëram moo ko dimbale ma mën a sàcc xaalis ba yëf yaa nga amee ca Pikine tali bu bees Ndakaaru waa ma ne jabar ju sàcc jëkkëram xaalis loolu moom jikko kan la ci jabar yi aawa wala ñaareel ñetteel wala ñeenteel sàcc 4 millions moom fa bëri torop am na jabar yoo xam ne sàcc seen jëkkër rek lañ def liggéey bu fekkee nag sa jëkkër du la defal dara te xam na ko sàcc ko nag fay xaw a dagan